en tenant cette cérémonie ce matin ici à Sangalkam pour inaugurer un poste de santé. Vous parachevez aussi, Madame le ministre, en compagnie de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, une tournée entamée à Cameroun, la religieuse, capitale de la communauté laïenne, où vous avez coupé le ruban symbolisant la réception d'une infrastructure de dernière génération dédiée aux femmes. En procédant ainsi, vous offrez à vos vaillantes dames de notre commune l'opportunité de développer des activités génératrices de revenus en les capacitant grâce à la mise à leur disposition d'outils modernes qui seraient sans ce projet un rêve inaccessible pour ces braves femmes. En effet, la maison de la femme que vous y avez érigée grâce au programme d'appui au développement économique et sociale du Sénégal, PADES, financé avec l'appui du gouvernement italien, contribuera sans nul à développer et à renforcer les capacités des femmes de la localité prêtes à réaliser des prodiges si elles sont, si elles sont soutenues. Et cette belle infrastructure y contribua grandement. Tous les habitants de Cambérène et à leur tête Mamadou Makhtar Laye, Khalif général des Layènes, vous, vous en savent gré et vous remercie, vous et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, d'avoir fait profiter à notre chère commune cette infrastructure financée par le PALES. C'est aussi le lieu de remercier vivement vos collaborateurs qui, durant tout le long du processus, ont été un apport remarquable par leur présence à nos côtés. Ils ont compris à sa juste valeur le, le, le rôle de transversalité de votre ministère et de sa contribution au développement du capital humain, notamment pour le bien-être de la femme et donc de la famille. Vive la coopération sénégalo-italienne, vive le Sénégal, vive l'Italie. Je suis particulièrement ravi de pouvoir participer ce soir à cette visite. témoigne encore une fois de la solidité des relations entre l'Italie et le Sénégal, pays amis depuis des décennies. Le gouvernement italien a voulu confirmer le Sénégal parmi les pays d'intervention prioritaire de notre politique de coopération et de partenariat financier. La promotion d'un modèle inclusif de protection sociale et la lutte contre la marginalisation sont des priorités de cet effort et nous poussent à trouver les meilleures formes d'accompagnement pour adresser tous les défis du monde moderne. Depuis son lancement en le programme PADES, agréé par les plus hautes autorités de nos deux pays au niveau du président de la République et du

Je voudrais, Madame la Ministre, vous remercier vivement, ici et maintenant, pour votre engagement, votre détermination aux côtés de son Excellence M. Macky le Président de la République du mais également pour le travail extrêmement important que vous êtes en de dérouler au niveau de votre ministère. Je voudrais également saluer Maire Dia Leboubi. Madame la ministre, ce joyau que vous venez d'inaugurer en présence de son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Sénégal est une traduction claire, nette et précise de la volonté du président Macky Sall de faire de la santé un des leviers importants du plan Sénégal émergent. Plan Sénégal émergent, référentiel unique des politiques publiques avec ses trois axes. L'axe 1, la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. L'axe 2, le capital humain la protection sociale, le développement durable et enfin l'axe 3, la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Voilà ce qui rythme notre économie et notre politique vers l'horizon 2035. Madame la ministre, comme vous le savez, suñu réew di Sénégal ci njiitalu président Macky Sall mi ngi nekkoon ci trajectoire bu ak croissance bu am solo ndax 2011 suñu croissance 1,7 pour cent la woon en 2019 eggoon nañu daanaka ba 6,7 mais hélas est arrivée la pandémie à la Covid-19 cette pandémie à la Covid-19 décélérateur de croissance a été également une opportunité pour le président Macky Sall de mettre en œuvre une politique de relance économique et parmi cette politique de relance économique que nous pouvons appeler la problématique de souveraineté souveraineté alimentaire ñu ñëpp gis nañu li mu def ci wàllu mbay mi ci wàllu càmm gi ak ci wàllu napp gi mais souveraineté également médicale moo tax mu indi ay usines yoo xam ni bientôt dinañuy defar ay vaccin contre la Covid-19 ak yeneen vaccin mais également souveraineté bi réponse bi ci apporté mooy lii ça c'est un poste de santé poste de santé de nouvelle génération ma wax ni poste bi ko xool ma ni mat na centre de santé ndax jumtukaay yi ci war yépp mi ngi fi moo tax je voudrais saisir cette opportunité pour également féliciter le médecin chef de district de Sangalkam ci engagement bi mu jël ba aujourd'hui le poste est opérationnel madame la ministre dañu lay yóbbante ci président Macky soo demee nga ne ko commune Sangalkam yëpp gërëm nañ ko sant nañ ko te ñi ngi ci ginnaawam tey ak ëllëg. Guèye mon frère ami l'excellent maire de la commune de Sangalkam maa lay nuyu. di la sant di la re remercier sama tur ak turu délégation bi ma àndal su ma nuyoo gouverneur ba pare ak préfet yi ak sous-préfet yi maa ngi lay beral nuyoo di témoigner fii ci Sangalkam sa dynamisme sa taxawaay ak sa xarañ ci gouvernement Sénégal nga ne suñu porte-parole monsieur le ministre balaa nga xam sa waaye da dem ba këram bu ma ñëwee fi Sangalkam dinaa xam ne yow la. xam nañu président Macky Sall kenn du moom waaye am na jàmbaar fii ci commune Sangalkam monsieur le ministre ñu lay remercier monsieur le maire ñu lay remercier ci turu PADES ci turu département bi nga xam ne moom laa jiitee mooy am département stratégique nga xam ne jigéen ñi ak ndaw ñi moom la président dénk ak famille nga apporter contribution bu rëy ci santé bi équipé ko. engagé infirmière ak sage boo xam ne suba suba bu ñu neexee tey poste bi commencé fonctionner monsieur le ministre encore une fois ñu lay remercier waaye loolu bekk ñu si ñun sa taxawaay yàgg nañ koo gis yàgg nañ koo naw yàgg nañ aussi félicité la ci li ngay liggéey fii ci Sénégal kon monsieur le ministre monsieur le maire ñi ngi lay nuyu baax di la sant baax di la gërëm remercier toutes les populations de la commune de Sangalkam profiter occasion bi nuyu monsieur le maire de la commune de Cambaren et monsieur le l'adjoint au maire de la commune de Guinaw Rail Sud pour seen accueil ma defal ci suba tegee nag tey fii nag activité bu am solo boo xam ne ñun en partenariat ak PADES la coopération italienne ñoo ñëw di inaugurer infrastructure yi nga xam ne moom la son excellence le président Macky Sall gouvernement Sénégal lëkkaloo ko ak coopération italienne defal ko askanu Sénégal loolu nag dafa ñëw dugg ci li nga xam ne son excellence monsieur le président de la république ci wax ju néew ji ak jëf ju bari ji bëgg Sénégal jëm kanam mu tëgg programme Sénégal émergent teg son axe de le développement du capital humain fexe ba nit ñi fu mu dëkk ñu am éducation bu doy am école yu baax yu mën a jànge xale yi xale yi am ñu am poste de santé parce que la santé avant tout am aussi financement ak taxawaay bi nga xam ne jigéen ñi moom la ñu war a taxaw pour mën a jëm ci kanam pour mën a jàppale seen ay famille kon gàcce ngalaama monsieur le président de la république kenn du moom ci réew mi ci liggéeyam ak taxawaayam kon ñu koy félicité sama tour ak tour population yëpp di ko remercier parce que lii yëpp moo ko waral kon monsieur le ministre monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la félicité di wax ne waa population Sangalkam tey outil bi ñu leen defal nii muy maison bu centre santé bu am solo bi ñu fi teg li ci ëpp solo moo ngeen porté ko nga xam ne seen yëf la ko moom ngeen entretenir ko def ci li ngeen ci war a def ñu féliciter en passant le médecin chef de district di remercier ma sœur euh, chef de chef de la région médicale de Dakar Ndeye magget di ko nuyu moom tam bu baax di ko féliciter di féliciter en passant le ministre de la santé notre frère Abdoulaye Diouf Sarr sunu maire suñu candidat benn suñu candidat à la maire de à la ville de Dakar ñu ngi koy nuyu baax di ko sant baax di ko gërëm di ko ñaanal moom tamit man maay deuxième adjoint tam te ñaan naa yàlla ñaanal nag incha allah ñu taxaw gañe liste bi comme ni suñu maire monsieur le ministre fas yéene gañe fii Sangalkam defe naa waaw waa Sangalkam nee nee nañu waaw nee nañu waaw monsieur le maire